jërë jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm fii ci jam ñaajo nag di nuyu suñ mbokk internet yëpp yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV tey nag ñu ngi fii ci jam ñaajo seet si benn champion ñu koy wax Dab daan champion ba nga xamante ne bii macha allah ndaanaan la ci biir ndaanaan yi ndax bëre na ak ay moromam bëre ak ñi nga xamante ne bii ñoom ay ñooy ñooy ñooy ay magam amaat combat ba nga xamante ne bii nag ci la jëm tey Leewtoo TV seet si ko fas yéene seq ak moom waxtaan ci seen émission ndogu ak duñ def rek lu dul ànd ak sama caméraman Bilal ñu seet mbër xool ko naka lay dundee koor gi waa mais champion jaar naa la. bay waaw kar waaw lépp jàmm sant yàlla jaar la. Leewtoo TV tey seet si la. waaw nuyoo. waaw auzu billaahi min seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim waaw ñu sant yàlla julli ci sant suñu ñaari waajur di suñu waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm. xale ko dal leen ak jàmm bi moo nekk nii. ayca ñu ci biir xool gaay yi ayca sama gaay ñu dem. Leewtoo TV Oumy Diankha yàlla na nguur gaa njofa pambe ah. di leen wax ne bienvenue à Diamniadio mhm. man la Sidi Ndiaye nag xam nga mhm. di eh, magu Iba mhm. di xaritam di magam muy sama lépp quoi di leen wax bisimilah bienvenue à Diamniadio waaw salaamaaleykum sama gars yi siyaar naa leen bu bëri wér yéen waa Leewtoo TV siyaar naa leen lu bare bëri ñuy ngi rafetlu seen seen ñëw si Diamniadio quoi ñu ngi rafetlu bu baax baax di ànd suñu suñu mbër Iba suñu borom may ko ndam si kàttanu yàlla ak mbaaxam mais eh, waa Leewtoo TV ñu ngi rafetlu seen teewaay fii si Diamniadio xam rek ñun amuñu ku dul dab quoi ku jàpp dab ñu jàpp la ku jàppul dab tamit jàpp ñu la. Eh, salaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm eh, mbégte la nag ci man lu tax ma ne mbégte la parce que ñi ko daa tëggal mbapat dama cee bokk. ñu nekkoon waa G waa G5 production te nga fa tëggal mbapat bu rëy muy def tàkkusaanu rëy fii. bu ñu ba toog fii tey muy bëri arène fierté la ci man te gëm naa ne te biir na li may wax nii di ngeen fi ñëwaat ñu naan roi bi mooy dem bëri ji tey boobaa incha allah dañuy jàpp ne boobaa yéen a koy accompagner ci carrière am yàlla na ko yàlla may euh, wérgu yaram ba jour combat ba mu daan adversaire am tamit yàlla na ko yàlla may wérgu yaram incha allah champion la jàmbaar la. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal waa Leewtoo TV di kontaan bu baax ci teew bi ci ñëw bi ngeen ñëw jam ñaajo ñëw fekk si suñu yaakaar fekk si koo xamante ni dafa porté li nga xamante ni moom mooy drapeau wu Diamniadio porté li nga xamante ni moom mooy couleuru Diamniadio yëkkati turu Diamniadio. waa Leewtoo ñu ngi leen bégee bu baax di kontaan ci seen ñëw fii nii si grand bi grand bi nag suñu grand la mais grand bu baax la li mu jël nii muy bëre dañ ko ci ñaanal xam naa ne bëgg na ko en fait mën na ko quoi ñi ci nekk ñëw kenn mënu ko ci liñ koy ñaanal rek li mu ci bëgg yàlla defal ko ko ndax wax dëgg yàlla ku ñu respecté la en fait ku baax la bëggul lu ñu metti quoi en fait bu ñuy xool sax dañuy xam mbëggeel bu mu ñu bëgg ñu koy ñaanal rek li mu bëgg li nekk ci kanamam yàlla defal ko ko am nañ satisfaire ñaanal ko li nga xam ne moom la bëgg yàlla defal ko ko te dina ko am incha allah jaajëf Leewtoo umi janka yala na ngur kanjo fa pambe ah lewta tifie umi janka yala na ngur kanjo fa pambe lewto tifie umi janka jangi ma ngur kanjo fa pambe Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor kaaju fa Bambey Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor kaaju fa Bambey di leen fàttali ba léegi ñu ngi fii ci jam ñaajo ñu ngi taxaw ak suñu benn yaay booy yaay booy ñu ngi lay ziar. yàlla ko yàlla nangu ñu bokk ko. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla bu wér a wér. yow lan nga doon ci dab daal. li ma doon ci moom dafa bari. day sama doom. di sama xarit. di sama goro. respecté ma fonk ma teg ma place. mu mu tegoon yaayam yàlla na xippe ca àjjana ci barke sëñ Touba Mbacke ndam daan mii yàlla na ko yàlla may ndam ci barke jumaay Touba ci barke maam Alaaji Maali nga xam ne mooy sëriñu soxnaam ñu di ko ñaanal ndam yàlla na ko yàlla may ndam daan am na ngor yaru na teey na am na sutura am na teraanga yàlla na ko yàlla suturaal ci barke Seydina Mouhamed sangu-sang yi xale yi nag boo gisee ma di leen wax yàlla dafa yàgg ak jaamam ñoom ñii seen yaay ak sama rakk ja ca àjjana te jur nday ndaw mii dañoo bokkoon nday bokk baay yàlla weddi ba yàlla weddi sama rakk dem ba tey ñoom ñii ak seen yaay jàpp sama doom yi ba sama xel dal ñëwuma fi guddi ñëwuma fi suba ñëwuma fi ngoon ndax seeni waajur kon ma di leen sant di leen gërëm kon bu lii amee il faut ma ñàmbaas ci loolu ndax kuy fàtte démb doo gor. suñuy wax tey démb moo tax. bu ñuy wax tey démb a tax kon nag ma duma fàtte démb mu ko ci àddina ndam daan mii ñëw jël sama doom ji may ñaan ci kàttanu yàlla yonent bi ak Serigne Touba Mbacke. yow yaay yaayu soxnaam. maa yaayu soxnaam. maa yaayu sox. goro wantoo ak mbër neex na. waaw neex na neex na ndaxte boo goronteeg mbër mu am jom day neex. ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa salaam maa ngi gërëm Ibba nag ndax boo gisee ñun ñu teew fii tey Ibba Nguer moom moo ko waral Ibba doon xale bu yaru doon xale bu am fulla xale bu am jom xale bu am diine xale boo xamante ne yaayam daf koo gërëm baayam ñaanal ko Ibba yaayam daf koo ñaanal ba ni muy uy jee yàlla suñu boroom Iba nekk ci koñ bii nag Iba xuloowul Iba xeexul Iba seq ak ñëpp jàmm seq ak ñëpp salaam macha allah ñu koy ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér di gërëm soxnaan ku baax la. man la Max laa Lyon. lan nga doon ci dab daan. waa dab daan nag dafa nekk suñu rakk nekk suñu dëkkandoo di ànd ak sama rakk aadama Mbaye mu daan ko tëggal mbapat boobu ba tey mu jàpp te bàyyiwul suñu kër mooy deuxième këram. nekk nag xale bu baax xale bu am jom xale bu am diine am lislaam yaru ni mu toll nii noonu rek la toll ni mu mel nii noonu rek la mel man nag li ma koy ñaanal mooy yal na ko yàlla may ndam ci barki Seydina Mouhamed salallaahu alayhi wa salaam. man Max laa Lion gaynde Waly Ballago sekk borom marok ak képp koo xamante ne nii waa jam ñaajo la yaa ngi ci gannaawam xam nga lan moo ko ko may yar teggin fulla fayda jom ngor. ah parce que man gaynde Waly Ballago sekk laa maa ko nekkal Maroc max laal yoon di Faramareen waaw maa ngi nii may gaynde gu mag gi nekk nag ci gannaaw Ibba di woon ak Faramareen yëpp waa Maroc gépp a ngi ci gannaaw bàyyiwuma kenn ñëpp laa woo waa Asie. waajee combat bi. waa Asie Rasta waa marché Médina. maa ngi woo ñëpp waa ba waa Bulba bàyyuma waa Ulfa bàyyuma waa Alliance bàyyuma waa Rond-Point d'Europe ki ne faare maareen sama rakk joo ci Casablanca yéen ñëpp maa ngi leen di woo. ça va ngeen def. tur bi nan la. Aminata Ndaw. yow lan nga ci dab daal. man je suis la grande sœur ci jabaram waaw je suis la grande sœur de sa femme. Ibba sama jëkkër ju baax la. moom li mu ne mënul wax ci man man tamit mënuma wax ci Ibba Nguer maa ngi moom dafa yàgg du tey. man Ibou xoolewu ma ko dara dara dara lu dul bëgg ko rek ba mu jeex tàkk di ko ñaanal nag yoon wi mu jëm yàlla bu ci gis dara lu mu ragal bu dee sama yaay Chérif la sama baay di séeréeru ceddu Ibou lu mu ragal yàlla bu mu ko gis ci yoonam bii maag jabaram ñoo bokk ndey ak taawu kër gi daanaka di yaay Iba jël lépp teg ma ci kawam sama yaay wax na lépp mënu ma ci det mënu ma ci dem bamtuwaat mais dama koy ñaanal rek ci kaw ci kanam Iba dénk naa ko ak yonent bi yàlla bu mu gis lu koy ragal ci làmb ji yéen tamit maa ngi leen remercier yéen ku ñu baax ngeen kenn amul seen fay macha allah lépp rafet na kontaan naa trop dab daan dafa nekk rakk joo xam ne rakk ju neex a boot la wax dëgg yàlla parce que dafa nekk rakk ju déggal ay magam wax dëgg yàlla dëkk bi mu dëkk muy jam ñaajo wax dëgg yàlla jàmm la am ak ñëpp amul fenn amul kenn ak xaar ma yàlla wax dëgg yàlla rakk ju baax la daal rakk ju baax la. waa ni muy doxee ci wàllu làmb nag comme euh, bi ma fi ñëwee suma xel dafa dal ndax euh, maa ngi fi fekk ak euh, ak ay xaritam ay doomu ndeyam comme ku ci mel ni Mama Dioum wax dëgg yàlla fu fu dab daan dee rek dee na fa wax dëgg yàlla moom it amuñu. amuñu fayam ñun waa Diamniadio ndax lépp ci commune Diamniadio la mais moom ci localité bi bi mu dëkk ak Diamniadio boo ko doon ak ak euh, Diamniadio centre fii dab daan dëkk boo ko doon xayma mu ngi ci maximum 3 kilomètres te lépp lu dab daan sumb sumbale na ko ci wax dëgg yàlla di ko di ko jaajëfal ak euh, yeneen euh, yeneen moroomam yi fi nekkal Cheikh ñu naan ko Balla de ak yeneen bëri yi nga xam ne fekk naa leen ci te jotuma leen ràññee waaw waa li may conseillé dab daan mooy que euh, dab daan laa xam te moom it boppam la war a xam Mbaye Tine jina tamit liggéey na parce que ku dem bay joué euh, ku dem bay bëre grand combat rek yaakaar naa yaakaar naa ne li yaakaar naa liggéey nga mais dab daan moom moo fi nga xamante ni fa la tegoon tànkam démb su ko fa continuer mu liggéey li ci des moom gëm naa ne incha allah yàlla dina ko may ndam. Hmm. di kon am ci yéen kontaan ak ñi ma fekk ñëpp wax dëgg yàlla waa di leen ziar di leen gërëm bu baax a baax a baax. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur ñu ngi baalu àq ñëpp di baalu àq di baal àq ñëpp di sant. waa Leewtoo liggéey bi yàlla na gën a jëm ci kanam di ñaa sama rakk sama xarit sama doomu nday Iba yàlla may ko fanu gudd ak kattan ak wér ba bés ba yàlla may ko ndam lu sedd guyu di gërëm sama rakk yi ay armée bala boo yëpp daal bàyyiwuma kenn man nag sama wax du ju population bi laay woo man ndax fii dañoo rafle ñunu taxaw dañoo rafale ñun jàppale xam naa moom après dina ci avancé ñi ngi woo ñëpp mais rek tout le monde ma kenn képp koo xamante ne jëm naa moo la ñor ñëwal nga jàppale ñu te yàlla tax parce que bay ci sawu tànk te ñun amuñu lu jëm ñaajo jëm ñaajo moo nu ñor gan mu neex na mu naqari ñu la fi yàlla teg kon donc nañ ñëw jàpp ji te yàlla tax seen yëf la bu ñu ci jàppee dañ ci war jàpp bu ñu ci jàppul dañ côté finance parce que ñun dañu am problème boobu dañuy dem ba juru combat mbëri war a dem di am ay problème car ay problème ticket te du yoon te autorités yi nekk fi bu ñu jógee ñu jóg loolu du yoon ñoom ñoo ci war di jàpp loolu laa am lu may wax gannaaw loolu nag di sant yàlla bu baax a baax di ñaanal mbër yàlla may ko fan wu gudd wér ba bés ba yàlla may ko ndam di sant jabaram jabaram ku baax la sama gain sama xarit la gërëm ñëpp sant naa ñëpp ñi ngi fii ci jam ñaajo ndogu nan ba noppi waxtaan ak ñi nga xamante ne bii ñooy entourage u Dabdane ñi nga xamante ne bii ñoo dëkk ak moom dégg ngeen témoignage yi nga xamante ne bii def nañ ko ci champion mbër témoignage yi ñu def ci yow lan la lan la def ci yow waaw onze ah, billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi di sant suñuy ñaari waajur yi ñaaral suñu waajur bu góor mm-hmm. yàlla na ko fi yàlla yàggal damay ko wër ñaanal suñu waajur bu jigéen yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko nekkoon waajur bu baax ci ñun ñaanal yàlla bu mu dajeeg lu ko naqari ci bàmmeelam waaw te am nañ yaakaar ci moom di santaat yàlla bu baax di am mbégte di sant waaj jam ñaajo bi yépp rawatina képp ku teew fii di wax ni lii bettuma ci ñoom parce nekkul tey rek lañ ma ko defal waaye nag loolu yëpp ñoom seen mbaax la rek nekkul man lu ma leen ji wax dëgg faale lépp luñ ci wax rek dégg naa ko di leen wax lépp bu lu ñu yéene ci man yàlla na ko suñ boroom def am na nag ñu fi wax waxati ci lu baree bari bari di sant tamit su ma soxna nit ku baax la wax dëgg faale toogee ba léegi jógul di ko ñaanal yàlla lépp lu mu yéene ci borom këram yàlla na ko suñu boroom defal waaw di sant ñëpp wax dëgg faale képp ku fi teew rek maa ngi lay sant ñu teguwun foofu bàyyi ba ci kanam ñu doxalaat li si des. ñu seet si la jamonoy koor ku nekk xam na ne koor euh, yaram yu bëri day laati kaaf naka ngay dundee koor gi ak entraînement bi. waaw kon ni ko ñëpp di dundee rek parce que mën nañu ni dañu am ñu ñu nekkal ñoo xamante nii yàgg nañ ci entraînement yàgg nañ entraîné ci wàllu koor ak leneen lu dul koor. ku fi mel ni suma benn grand mu nekk nit ku baax di ko ñaanal yàlla lépp loo xamante ne yéene na ko ci man yàlla na ko yàlla defal waaye tamit di ko ñaanal lépp lu mu namm ci àddunaam suñu borom defal ko ko sama kon côté entraînement ku xam dab bu njëkk xam ko tey xam ne ni wuute na muy euh, waali fay di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax parce que xam nga li may defal moo gën ci man jamaa walla or sérieusement parce que xam nga ku lay xam nga ki lay gëtan ci entraînement Ah, bu toogoon ak man nii di wax sax da nga naan xam nga est kii bañul dab fekk ni demewul noonu. daf lay teg lu métti. merci waaw boo fekkoon man ak moom biir saal même chose xam bu gars yi di ma teg yenn yi mu ne eh kii kii la xam nga yokkal série bi yokkal nangam loolu yëpp xam nga bëgg mu baax rek la. di ko ñaanal yàlla lépp lu mu namm ci man yàlla na ko suñu borom defal. entraînement yi ci koor gi da nga koo yokk wala da nga koo wàññi. non sañu ñu wàññi moom fu mu tol nii ak lu mën a xew. gaa d'accord koor metti na mais xam dañu yokk suñu entraînement parce que dañu jëm muy lan grand combat ñun ak mbaytin gaa xam bëre grand combat jaaxaluñ parce que bëre nañ ko bëreeti ko kon loolu ñun garaawul pour ñun mën nañu bii mooy suñ troisième grand combat kon xam nañ ci nan lañ ciy demee incha allah waaw dinañ ci ñëw ci kanam bu ñu demee salle dinañ ñëw ci grand combat bi mais dama bëggoon rek ñu dellu sa waat gannaaw tuuti ci sa parcours ñaata combat arène nga def man bëre naa bëre naa onze combat arène waa la am. huit victoire waaw trois défaites. trois waaw. ñan ak ñan nga daan. ñi ma daan bëri na. Mhm. mais dama la fi limal ñi nga xamante ni ñoo gën a kii parce que bëri naa ak Socé Mané. Socé waaw daan naa au Sodou. Mhm. Euh, daan naa Issa Le Fou. Euh, daan naa Mbaye Faye. Mhm. daan naa am di Nogay. waaw ñu daan daal bëri na ci làmb wax dëgg fa yàlla. waaw mbay guy gi moo ñu daan. ak caatu yaraax. Hmm. waaw xam nga ay defet moom du neex a jàpp. du neex a jàpp waaw waaw ay defet neex a dafa dafa metti moo tax jàppoo ko quoi waaw noonu la demee mais jàpp nga victoire yi jàppoo defet waaw euh, combat yi nga bëri yëpp ba na ci gën a metti loolu nag xam naa dafay laaj gaay rek comme ça <laughs> waaw waaw waaw. sa combat Mbaye Faye. ah Mbaye Faye sama toomaa la de. sa combat Mbaye Faye waaw lu tax mu metti mhm. dafa bëreeg euh, Boy Dioum. Boy Dioum sa sama grand. Mhm. ñoo ngi dañu bëre combat bu metti mhm. xam nga yàlla may ko ci ndam. ah man tamit gars yi woo ma proposé ma ko man ah loolu de combat revanche. kon naa ko jël moo ko jëlee bàyyilaat sama benn commun xam moom laa ko njëkk a mu ne boo yow xanaa da xaru booy gis nga Mbaye fay ma ne ko non garaawal dama koy daan incha allah ñu dem ama ñu bëre combat bu métti mu wër ma fi ndomb trois fois yàlla may ma ci ndam. Mhm. waaw combat bu métti wax dëgg. mu war la ndomb trois fois trois fois ci biir làmb ji wër na ma ko ndomb waaw. Mhm. waaw dëgg fa yàlla yóbbu na ma tamit ardo wax dëgg fa yàlla dóor na ma ci dóor. rosa na la waaw wax dëgg fa yàlla waaw mu nekk mbër bu mën xeex. Mm-hmm. waaw boobu daal mooy combat bi nga xam ne moo gën a métti ci say combat moo gën a métti sama combat wax dëgg combat na trop mm-hmm. mais nag jël bu laa daan jël bu ma gën a neex laa ñëwal ñëwal ñu ci ni ko daana woon waaw parce que euh, damay taxaw rek di ko xaar chaque instant di taxaw di ko xaar di taxaw di ko xaar ñu dem ba bëre maa ngi moom bëre nañ lu ma 18 minutes ma ne kii nii su may taxaw di ko xaar moom xam nga wóorul quoi léegi xam nga arbitre sifflé xam nga ma léew toog moom yóbbu ko ba si euh, côté saaku bi. Mhm. xam nga luy génn saaku mu door rek ma daw jàpp ko. Mhm. ko jàppee bàyyi ko mu takk sama ndig moom moo takk ba mu dëgër. Mhm. mu zongale ba mu zongalee ma yaaba ci kawam. mu wàccee waat ma dafa wàccee rek ma ensonné zongale ma ensonné goos bi. goos bi doxul ma indiwaat droite bi. maanaam bu nekkoon football dañ naan fili falab. ak loolu mooy action continue. flip flam ayca bi ngi loolu commentaire nga combat bi nga xamante ne bii mooy combat bi la gën a neex mais ban combat la gën a métti ci sa combat bu ma am defar rek métti na ma parce que mën naa ni xam nga fu tur bi egg jëmu ji eggul foofu noonu mhm. kuy dund làmb xam nga ko mhm. wax dëgg fa yàlla mhm. mais su ma daanoo. Mhm. su ma ñëwee sama gars yi xam nga kenn du siggi xool ma. ñoom ñëpp dañuy jooy. Mhm. moo tax man fu ma daanoo rek daf may metti mhm. amul combat bu ma daanu mu neex ma ma yëpp ma metti yëpp a metti yi ma daanu yëpp daf ma metti mu mel ni Leewtoo tey daf laa indil benn benn benn benn benn pañe pañe ndogu offrir la ko. lii Leewtoo TV moo la jox lii. Euh, kontaan ci yow ci dalal bi nga ñu dalal fii ci Diamniadio. Euh, di la ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam di ñaanal sa entourage ak say mbokk tamit bi ñëwee gis nañ li nga xamante ne bii mooy ni ngeen ñu teeroo ak ni ñu dalale kontaan nañ ci bu baax a baax a baax macha allah léegi dañuy continuer ba léegi ci li nga xamante ne bii mooy waxtaan bi lan moo indi turu dab daan bi jaaxal na ma trop tur bi dafa raar mosuma koo dégg ci turu mbër. Ah, dab daan moo moo séeréer la du dab daan quoi c'est nit ñi ñoo mënul moo bi. ñuy wax waaw wax dab mais di dégg séeréer dëgg-dëgg. Mhm. xam nga dafa am ku ñu ko jox. Mhm. yaakaar na am na ñaar ñi fi nekk ba ñu koy jox ñoom ñoo ngi toog. Mhm. am lu ma trois tur yu ñu tànn loo woon. ñu tànn tur boobu. mu nekk nag loo xamante ni du lu ñu mën a yaatal ci télé wax dëgg fa yàlla. waaw ay ca mi ngi noonu kon mbër du ñu def rek lu dul bàyyi la nga dem préparé ñu dem salle bu ñu demee foofu nag day tàng jër. fii sax mën na doon nekk ci kanamu gaay yi yooyu mais foofu bu ñu demee hmm. ci luy baax lay doon du am ruq bu sedd waaw saal du yomb mais tamit balaa may dem saal euh, dafa am lu xamante ni xam mënta ñàkk hmm. te boo jummi xam nga wax ko sànq hmm. damay sant kenn koo xamante ni ci man wax dëgg fa yàlla mënuma sori ci moom parce que yàlla daf ma boole ak moom ànduñu ngir moom mu doon dara wala man ma doon dara non non moom lool mag la sama deret la chaque jour dama koy muy Adama Mohamed Mbaye suma deret la. Mm-hmm. parce que grand frère la. Mm-hmm. parce que damay féete foo xamante ne nii man maa xam ak yàlla li may def nii sax moom bëggu ko mais nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dane bu la nit defalee ngir yàlla. Mm-hmm. yow wax ko ngir yàlla. waaw su ko defee rek xam nga lépp mën a avancer. Euh, du ma ko sant mais xam nga dama xay ñaanal yàlla. xam lépp lu mu namm ci man yàlla na ko yàlla def. wax dëgg fa yàlla du jóg ci man ci wàllu entraînement. lu ne lu ne lu ne boo fekkoon fi boo ma fekkoon seen kër. Mhm. da ngay yaakaar ni kii xam fii la dëkk. Mhm. ba ci yaayam. Mhm. muy kat yi wax dëgg fa mu nekk xam maire bu baax. di ko ñaanal di ñaanal borom këram yàlla yërëm ko jéggal ko xaaree ko àjjana muy sam papa Racine Mbaye. nekk ku baax wax dëgg fa yàlla. lii nii xam bu masaan am fu ma ñëwee damay toogloo lu ma yàkkamti yàkkamti mën naa fa toog benn deux heures temps si ay ñaan rek yu may ñaanal. nekk ku baax ñaan yi ma doon ñaanal. maa ngi ko kay ñaanal tey di ñaan yàlla yàlla na ko fekk ci yàlla na ko fekk ci biir bàmmeelam di sant sumay yaay ku ci mel yaa nday Seck wax dëgg fa yàlla boobu tamit xam ñun amuñu fayam mënuñu saa wax ci moom xam di ñaanal suñu yaay yaa mati jabaay di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm jégal ko suñu maam lii nii ñuy def ni këram la dooree mm-hmm, di yàq ay ndoxam di jël ay sërëm di ko xotti maire yi di wax ci koñ bi mën na leen seen yoon nekk samay samay sët yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko maire boobu su ma ko tuddul rek c'est parce que xelu doomu aadama mooy fàtte mais man fépp fu ma toog moom laa war a jiital yàlla xam na ko ñaanal yaa Mbène Guèye ñaanal yaa Ndeye Ndiaye xam nga suñu waa kër samay mag xama sama mag bu jigéen bu ñuy wax euh, Binta moo ngi sëy Touba mooy sama taawu yaay mooy sama yaay di ñaanal moomi wax dëgg faa la kooku moom mën naa ne moom mooy yaay tey fu mu toll nii nekk nit ku baax moomi di ko wax ni na góorgóorlu rek li muy daj xam nañ ko waaye xam na jàpp ni ah dénkaane la rek ci moom di ko wax ñun xam nañ bu baax yéeneem ci moom waaw lépp lu mu namm ci ñun yàlla na ko suñu borom defal monsieur le maire Mamadou Moulaye Gueye suñu papa la suñu xarit la wallaahi euh, maa ngi fàttaliku euh, premier supporter bu am yaakaar naa ni moom la mu yëkkati 10 000 francs si jamono boobu ne ma am man maay premier supporter ne ma yow boo gëmee làmb ah di nga fi dégg lu ne Mamadou Moulaye Gueye maire Diamniadio uh-huh. mu nekk ku baax kilifa la mais kilifa gu oyof la di ko ñaanal yàlla lépp lu mu namm ci Diamniadio lépp lu mu ci bëgg yàlla na ko suñu borom defal mais nag ñun ay doomam lañ te tamit ay ndaw lañ dafa am fuñ ko soxlaa te wax dëgg fa yàlla nit ki boo waxul sa mettit kenn du ko faj bëgg nañ mu jàpp ci bu baax a baax a baax ndéem mu ngi ciy jàpp mais na gën a def te xam ne lii ñuy def nii ay doomam ñoo koy def yàlla xam na ko di woo Baba Traoré kooku wax dëgg fa yàlla suñ ma doon wax kan mooy def jam ñaajo te yàlla tax am naa sañ-sañu dem jàpp ci loxoom indi. Baba Traoré waaw. Mhm. sañ naa ko. Mhm. parce que day def te du fi séentu dara. nit ku baax la yàlla xam na ko man mii day toog ñaari fan ñetti fan yu ma déggul non du am te kilifa la day jël téléphone am di la woo da nga woo doo ko jot moom mu ñëw woo la. kon loolu noonu dafa rëy ci kilifa gu doy ni moom ku ko xamul tamit jam ñaayo dégg nga ko yaakaar naa première ambulance su jam ñaayo moom moo ko jënd su ma juumul quoi xam damay bañ a juum yaakaar naa moo ko def yooyu noonu acte yooyu noonu xam dafa rafet ama ndaw sekk noonu xam ñu nekk ay nit ñu baax ñoo xam ne xam ay kilifa lañ xam jàpp benn dab bi nga xamante ni xale bu ndaw la nit ku xeebu la mais fu ma leen woo muy guddi muy bëccëg ñëw nañ ma taxaw wax dëgg faale El Hadj Baaba Maal tamit di sama papa di sama xarit mhm. ma fekkoon man ak moom da ngay jàpp ni ñii ay moroom lañ te loolu xam nga nekkul ci man ci ñoom la seen baaxaay la rek waaye bu loolu yëpp wooyee samay xarit yi may àndal depuis xale mhm. wallaahi aw ma seen fay su ma leen tuddee su ma leen tuddul di leen wax ni chaque instant des fois xama mbir toll foo xamante ne nii mhm. d'accord waaw foog mu ay loxo yu bees mais loxo yu bees yooyu jubluñ fi lu dul jàppale waaw ki ñu fi fekk. gën a defar pour waaw ñi fi ñëw nii di bees xam a ah ñi fi nekkoon démb rek la ñuy jàppale. moo tax xam nga foog ñun ñëpp ñu ànd liggéey wallaahi bu fekkee làmb la du ma du ma bàkku mais dama ko mën dama mën bëre sérieusement dëgg rek moo neex. d'abord ah billaay wallaahi taala dama ko mën pire. da ngaa mën te tamit yaa ngi naagu de. non pas naagu parce que parce que man jiital naa loolu. Mhm. dama ko mën. mais dafa am loo xamante ne dafa ñu manqué. da nga mën bëri gi euh, soo génnoon ci paawu làmb yi. Mhm. ñu ma jot xam nga laaj leen dab daan. ci wàllu làmb xam lañ lañ lay wax booy woo de daa manqué woon entraînement waaye bëre kenn daak ko ci. mais ñàkk entraînement boobu noonu ñu ma doon wax du ma kerse di ko di ko nangu tey. kani am naa ko ngir ban jëmm muy waali fay. Mhm. billaahi wallaahi taalaay waxuma ko ngir lu ko neex. Mhm. billaahi wallaahi taalaay. mais koo xamante nii dala def kon boppam. billaahi ci wàll day wax ak man ba mujj dama naan mais kii xam ban yéene la am ci man. wallaahi nit ku baax la. di ko wax ni nag lu bari lu may reyante fu mu toll nii ci làmb bokk na ci moom. parce que nit ki su la bëggee xam waroo ko gàcceel. te moom gëmul lu dul entraînement. suñu waxee mun ne ma dab hey demal nga entraîné ji bàyyi sa yi ngay def bu may nit ñi di raay sax moom du ma raay. kon koo wax noonu man xam dama koy gën a ñeme. ngir loolu noonu muy wax ak man du ma ko daw mukk yàlla xam na ko di ñaanal ñëpp jàmm. bande ah lewtati fiye umi janga yala na gorganjo fapambe lewtati fiye umi janga nyangi ma gorganjo fapambe Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor ka ju fa Bambey Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor ka ju fa Bambey Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor ka ju fa Bambey Leewtoo TV janka yala na gurkan jo fa pambe ah lewta tifie umi janka yala na gurkan jo fa pambe lewto tifie umi janka jangi ma gurkan jo fa pambe Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor kaaju fa Bambey Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor kaaju fa Bambey Leewtoo TV Oumy Diankano gi ma ngor kaaju fa Bambey Leewtoo TV umi janka yalana nguur mais champion ñëw nañ saal gis nañ ngay entraîné lii nga dëkkee chaque jour wala tey ni mu demee la a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur du nuyu jam ñaajo yëpp 22 quartier yëpp di leen wax bis bi moo ngi làmb ji seen làmb la dab seen doom la seen rakk la seen xarit la moo leen tàllal loxo ngir ñëw jàpp ci ma daan mbéytum jëli bu rëy gis nga nu mu demee yabu ma waa jam ñaajo te xalaatuma leen a yab incha allahu bi ba ñu ñëwee ba léegi mbooloo moo ñuy topp incha allahu rabi kon li may wax rek ci ñoom la dañoo baax dañoo gore liggéeyalu ma leen ko yàlla xam na di sant 22 quartiers yu nekk jam ñaar yëpp bàyyi ma kenn day wax bis bi seen bis la grand combat la man ak Mbaye Tine combat bi yóbbu na ma pour ma mën a bëreeg Lac de Guiers numéro 2 te comme ça nee nañ dafa tëg kenn mënu ko daan ci kattanu yàlla su bëreeg man ma daan ko ci une minute Lac de Guiers 2 la Mbaye Tine de Lac de Guiers 2 su bëreeg de Guiers 2 mi nga xamante ne bii mooy let na mooy mooy mooy mooy seefam Lac de Guiers 2 mu tëggaay di niil rek hmm. su bëreeg man ma daan ko ci une minute xanaa foofu laa ko teg parce que dama ko dégg moom laa da guerre mu am lu mu wax ci man mais na bàyyi xel ni moom moom ma tax di liggéey moom laa da guerre. laa da guerre bu bëre woon suba man ak moom ma daan ko ci une minute laa da guerre la dégg naa champion Mbaye Tine nee yow kenn xamu la gannaaw yàlla moom moo tax ñu naan dab daan dab daan avant avant muy jël sa avance kenn xamu la woon loo koy wax. man bi mooy sama troisième grand combat. moom mooy premier grand combat am. léegi nañ bàyyeek ñu yor seen xel di xalaat. ñu xam ñu laaj kan moo siiwal moroomam. nee na ma korok ba ma ko laajee dana ma bëre naa grand combat ma ne ko fan mu wax benn dëkk boo xamante ne nii bokkul sax ci senegal kon kooku bu siiwee ñun ñoo ko dimbali. waaw kon li may wax rek yàlla xam ne dama ko may chance moo tax du bëgg di wax ci moom lu bari. nekkul risque ci yow. dañoo dox sama combat ak euh, Nokia. Nokia bu ba da jonn mu xaw a dëgër ci côté am. Hmm. ñu baat nee xale bu sob la dafa nekk ci yoon mu bëgg ko jël. pour lan pour am benn Alioune Seye 2 wala pour benn Lac de Guiers ñooñu laa teg sama bët incha allah. non amuma benn pression du ma am pression ci làmb. Mm-hmm. ndax bu paree mystiquement. Mm-hmm. physiquement euh, daan ko yombul musuma paree làmb ñàkk ko non. may jégalu nag sama supporter ci ma daanu parce que euh, ñàkk pare la te mbër xam nga du ñàkk pare. di leen wax ni xalaatuma ñàkk pare ci làmb. làmb ju may dem dama xay pare ak bu mu mënti doon. te bii nii rawatina bii parce que mbay xam ama gay wax rek. day wax dab daan dab daan dab daan dafa umpale lu bëri. mais day wax mais tamit day jëf. non man jëfam gisuma ko. xool ma mais mais jëf moom moo tax nga jël ko champion. waaw d' moo tax jëf bi mu jëf ba ma gis ba ma jël ko. Hmm. moo tax mu dajeeg man gisatuma jëfam googu noonu xam nga lan laa gis. Hmm. maa ko mën maa ko ëpp doole maa ko dàq bëre te si kattanu yàlla yàlla mooy may ndam. Hmm. moo am ndam si barki weeru koor bi maa ngi ñaan yàlla may ma ndam. dinaa daan Mbaye Tine jël bu rëy. ni ko daan jël bu rëy. combat bi lan lay doon bëre lay doon wala xeex. pare naa pour lépp yaakaar naa. gis naa la sànq ngay ngay ngay lancer ay coups yu gaaw. bëgguma woon sax ñu jël ko wax dëgg fa yàlla parce que. dama laa sàcc. waaw parce que dafa am loo xamante ne hmm. dama bëgg moom mu umpale ko rek. Hmm. mu ko ba bis ba. Hmm. ba génn suñu diggante. bu boobaa moo xam ni. waaw wax kese daanul dab daan. incha allah wax kese daabul daanul dab daan wax nga ko sànq arbitre soufflé wàcce loxoom génn seen diggante yan ñaar yan ñaar ku ci nekk daw jàpp sa ngeen bu morom lan mooy am. Euh, mën naa ko bàyyi mu jàpp ba mu dëgër arbitre sifflé ma daan. dégguma ma bàyyi ko moom mu jàpp fu ko neex ba mu dëgër arbitre ma man ma daan. est-ce que xool nga Mbaye Tine est-ce que gis nga Mbaye Tine junior. waaw parce que euh, surtout loolu nag euh, gars yi si gis-gis gi maanaam euh, dañuy gis dañuy gis habillage. Mm-hmm. mais physiquement dama ne mbër physique am du lu ñuy xool di ko gis. forme moom man nañ ko xool gis ko si nit. Mhm. forme. Mhm. waaw mais physiquement. Mhm. maa gën pare maa ko ëpp doole. mais Mbaye Tine dafa am doole. nangul naa am doole mais man maa ko ëpp de. yaa ko ëpp doole. foo teg loolu. waaw liggéey rek xam nga am na lu mu wax. nee na moom xale la ko quoi sérieusement mais. Euh, su dee xale la nangul naa ko xale mais xam nga naa ko li ma ko wax ko rek ma ne ko Mbaye. ñëw am benn wax bu ñagas bu mu wax. yëkkatil micro benn wax bu ñagas bu mu wax. bu la wax yow. bu ma wax waaw. Mm-hmm. <coughs> Uh, <coughs> ma ne ko. dinaa la daan ba pare teral la parce que man mbër bu am xaalis laa. mbër bu am xaalis waaw mbër lay daan ba may la xaalis. parce que problème bi xam nga la la du ci man mais xam nga ñi may àndal. macha allah gannaaw gi ay noobu rek lay àndal. Mm. yàlla xam na ko. Mm. ay moget. Mm. xam nga xam nga gars yu nekk fii ah, samay copain. dëgg fa ay noobu rek. kon yow lan nga bëgg fi mu toll nii bëreeg Mbaye Tine Junior daan ko. may ko xaalis. dama ko bu dama ko may non loolu bu ko xalaat sax. <laughs> mais làmb lañ jëm xam nga xam nga yàlla. Mhm. yàlla suñu borom mën na lépp. Mhm. mais am na loo xamante ne yàlla jomm na ko pour def ko. Mhm. mooy. mooy lii yàlla ndam rek la may may incha allahu rabbi man xaritam laa. xaritu yàlla suñu borom la waaw te moom moom moom ndam moo koy maye moom yàlla suñu borom dama may ndam foofu laa ko wekk du leneen yàlla kon kon li ñuy wax si mystique wala nangam gaa d'accord lamb ak mystique ñoo ànd mais yàlla xam na entraînement ak bëre laa jiital yàlla xam na ko fi mu toll ni ñaata séance ngay def ci préparation ma wax la benn affaire baytin xaw ma nan la tudd waaye Baye Fall bàyyil yooyu ngay wax waay mbaytin laaj nga turam ba yóbbu ko paay bi ak weeru koor bii nii xaw ma mbaytin turam mbaytin est-ce que dencoo turam ci paay parce que xam nga lu tax toppatoowu ma loolu xam nga lan moo may teel entraînement fexe man ba sama yaram bi kenn bu mu ko jàpp mbër suñ ma jàppul rek nga gisu garaaw damaa mën da ngaa mën waaw léegi heure bu ñu waxee yaa ma naan damaa mën waaw loolu nag ñàkk jàpp gi maa ngi koy bàyyi képp kuy ñaan kat te nekk Sénégal mm. Sénégal laa lay wax ngay ñaankat maa lay tàllal samay loxo ne la nga dimbali ma ci ñaan ba Mbaye Tine bu mu téye samay loxo wax la nag. ah kon yaakaar nga loxo yi de. wax la waaw wax la yaakaar nga sa loxo yi de. wax la wax la mais bëre du ay loxo kese tamit. man mosuma xeex ci làmb bëre rek laay def dafa am lu ma jenc nit ñu umpale ko dama ko bëgg wane man ak moom mm-hmm. insha allahu rabbi mm-hmm. pour muy leer damay xeex ak Mbaye Tine mm-hmm. Mbaye Tine ngi lay xool wax damay xeex ak Mbaye Tine mi ngi nii ci caméra bi damay xeex ak yow ma daan ko su xeexee ma duma ko su bëree nga daan ko bu xeexee nga duma ko jeex na wax nga ko sànq bi mooy sa douzième combat su ma juum onzième combat bi mooy sa onzième combat trois défaites laa am trois défaites kon moom buy wax dafa umbale dab mm. liñ gars yi naan cin cin buy bax la amul ruq buy tàng amul ruq buy sedd mm. foofu laa nekk mm. te bu ma jógee ci mbaytin rek ñu xam ne léegi dëgg la laaj nga ma question bu ma neex parce que nekk ndaw mm-hmm. dundal làmb mm-hmm. tabax si la ma joxoon avance. tabax si daaw tabax si daaw. Mhm. la joxoon maanaam pas avance mais la la daggoon njëkk. Mhm. mosal mbëri lan la la compaloon quoi compal wane ni bëgg naa seen combat mu nekk gor. Mhm. ñu toog di ko xaar. Mhm. mais may sant nag waa jam ñaajo parce que ku toog tabak si daaw. Mhm. ñu gis lu xew ci réew mi muy corona. mu sonal ñëpp. mbër bu nekk jooy. àdduna ku nekk di jooy. ngir mettit mettitu àdduna. mais waa jam ñaajo taxawuma ci côté boobu noonu. wax dëgg fa yàlla manqué dara taxawuma fenn jooytu. kani dëkk bi dafa métti wala dafa dëgër lool su amee waa jam ñaajo la ma leen di sant ñoom ñëpp jam ñaajo bàyyi ma kenn si jàppale boobu noonu ñu ma jàppale sama diggante ak Yadaali wallaahi dafa nekk ku baax promoteur bu ma yéene la muy joob ak man leneen lu dul làmb wax dëgg fa yàlla. ngeen sekk leneen lu dul làmb leneen lu dul làmb mu koy jot ak man. Mhm. ci loo xamante ni nii xam nga si avenir u tab la. Mhm. kon kooku noonu su loo yéenee xam war nga ko mën a delloo ñu ko di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg si journée bi yàlla defal ko ko. Mhm. te incha allahu rabi maa ngi ñaan waa jam Diamniadio yëpp xam nga ñu mobiliser. ñëw ci làmb ji xam ni combat bi seen combat la tab daan ko dem yóoti ji Lac de Guiers numéro 2 miñ ne daa të nanguwul bëre benn booy def na ma. Euh, dama déglu benn booyu Lac de Guiers ah, ñoom laa déglu mu ne Mbaye bu la Lac de Guiers xaalis jëlal. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. bu la joxee sëriñ jëlal. mais bu la mm-hmm. conseillé bul ko déglu. bu la conseillé bul ko déglu. lan moo tax mu wax ko loolu. Ah, ñoom ñoo xam de ñoom la. lu tax mu ne nag bu la joxee xaalis jëlal. Hmm. bu la yóbbee si sëriñ. Hmm. jëlal mais bu bu la joxee ay consigne bul ko déglu. bul ko déglu Sénégal yëpp xam nañ lu waral loolu. lu tax loo bëgg a wax foofu. <laughs> loo bëgg non man ay waxi raay raayal yi. li ma bëgg a wax foofu nga ci naan la dëgër doo ngay la dëgër de waaw. Euh, ba ñu njëkkee jàkkaarloo ma ak mbaytin hmm. dama ba mu jeex. nangul ko lu mu doon. mais dañ ko dégg micro en tant que bu mel ni moom. xam nga bu mel ni moom mu toog foofu dab daan nii dab daan ne Lac de Guiers 2 bilaay baa nga dàq bëre mën naa ko jàngal sama combat moom la Lac de Guiers ñi mu bëreel benn ah. benn ñi mu bëreel bëre woog ñoom ñi daan daanoo leen ba pare nga bëgg koo dàq bëre bëreel kan limal ma li mu bëreel ngir yàlla Lac de Guiers bëre naa ak Modou Lo Modou Lo maa dàq bëre <laughs> nopp na sama gars yi waaw xaaral ak non non laal fu na loolu moom ba may jël mbër ba léegi maa ngi koy soogaa dégg nga ne yaa dàq bëre Modou Lo fuuf Modou Lo champion la la ndaanaan la bërekat la dama ko nangul mais maa ko dàqu bëre xam nga loolu maa ko dàqu mbër nag danga maa neex quoi xam nga lu tax nga neex ma nee ma lan moo tax. lu da ngaa gëm sa bopp. noo dama gëm sama bopp te li ma lay wax dafa am. Mm. Modou Lo gaa d'accord ndaanaan la roi des arènes dama koy nangul. Mm. parce que loolu noonu mu doon. Mm. xoolal Modou Lo. rëyul. Mm, seen biir la nekk ñoom ñëpp jommal leen. wallaahi ndax lan lu ko may gëm-gëm ak mën bëre. Mm-hmm. loolu benn moo nekk si moom. Mm-hmm. waaye man mil 1070 fois moo nekk ci man yàlla na ko. ayca ayca bi ngi noonu. bi ngi bi ngi léegi euh, du ma du ñu def rek lu dul euh, jéem a tàggatoo dama lay bàyyi nga wax ak supporters yi wax ak autorités yi nga xamante ne bii ñoo nekk biir jam ñaajo parce que sànq yaa ngi ma naan ñun mbëri jam ñaajo yi jàppale la ñu manqué waxal ak supporters yi ak euh, autorités yi bala ñoo tàggatoo. waaw sant yàlla bu baax julliwaat ci yonante bi. Mm-hmm. wax waa jam ñaajo surtout sama copain yi toog xam ne. Mm-hmm. mënoon naa lim benn par benn ci ñoom. moom mais yàlla xam na ni taxaw bu ñu ma taxaw wallaay dafa sedd sama xol daf ma gën a yokk fit muy ñoom ñi toog fii ñëpp samay autorité ñii la yàlla xam na ko ñii ñooy say autorité ñoom samay autorité parce que dañ ko dund ak man ba pare xam nga chaque fu ma tourné gis seen mbapat ba léegi loolu yàgg na bu loolu nag rombee dafa am ñoo xamante ñoom la yàlla jiital jam ñaajo fii ñoom ñoo ko moom sama grand bi wax na ko sànq muy lu am solo li ñuy wax ni suñu xol yi lañ ko tubbee dañuy jiital joxoñ kenn muy suñu meeru dëkk Mamadou Moulaye Gueye Mamadou Moulaye Gueye parce que li ma wax sànq sama kilifa la yàlla xam na ko te li ma wax ni lu ma gëm la mhm. man damay faral sama benn ganaar danaan euh, génnee cadre maire bu du Moulaye Gueye doon mag bu yaru la yàlla xam na ko mag bu yaru la kilifa la tamit nit ku baax la mais ci ñun li nga xamante ne moom lañ nekk dañu bëgg ñoom ñu ñëw jàppale ñu ñu gën fi gis sam suñu bopp man waxuma pour man de alhamdulilahi rabil alamin yàlla moom mooy dimbali tey làmb soo demee dab daan ñëpp xam nañ ko mais dafa am samay rakk yoo xamante ne dafa topp sama ginnaaw ñu sa gannaaw waaw topp sama ginnaaw mm. xam nga làmb war leen xam mm. Ah? Mm. mel ni Mamadou Moulaye tegul loxo. Mhm. keneen ak keneen teguñu fi loxo. Mhm. mais naka la ñuy xamee ñooñu. dëgg la kon dafa jot. li ma koy wax nii maay bëre grand combat laay bëre soxlawu ma ci moom benn kaar soxlawu ma ci moom ñaari kaar mën naa luyee sama bopp benn kaar mën naa luyee sama bopp ñaari kaar yàlla dimbali na ma ci lool booy làmb ba ma ko dalee bëree ba léegi dama leen may ay ticket ñuy dem kon yàlla dimbali na ma ci lool noonu dama koy ñaan na def loo xamante nii ah nit ñi dinañ ci teg seen bët kani moom moo ko def mu def lu am solo waaw mu jël mu jël benn exemple ci Bamba maire Bamba Fall waaw maire Médina ma koy tàllalaat loxo moom moom Bamba Fall. Bamba Fall di ko wax gis nañ lu mu def xam nga kuy mbër Sénégal rek lu nga ko. Mm-hmm. mais geste boobu noonu mu def. Mm-hmm. mooy geste gor. Mm-hmm. di ko ñaanal loolu noonu mu def. na xam ni defalu ko Diène rek kese. di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg Médina. yàlla na ko yàlla defal. parce que ku am jom am ngor la. waaw di ko ñaanal yàlla nag lépp lu mu bëgg si Médina rek. suñu borom defal ko ko. jaajëf waaw comme si egg nañ foofu dafa am ñoo xamante nii. am na jàpp si man. ay ca mu gaaw ku fi mel ni Adama Mbaye mhm. sama grand suma xarit day jàpp sama lépp mhm. Pape ndaw Seck noonu mhm. euh, sam benn père euh, Baba Traoré wax dëgg fa mun mën naa ne xam moroom sax laa ko def sonal ko trop dëgg fa yàlla sonal naa ko trop fu ñu dajee kaf ree xam nga jaama bokk nday bokk baay te kilifa la mooma mag junni yoon ay doomam sax ñoom mag kon kooku noonu xam dama koy delloo njukkal di ko tàllal loxo mu ñëw jàpp ci làmb ji làmb la El sa làmb la ñëwal teg ci loxo nga jàpp ji ma jàpp waaye daan ko jël bu rëy Serif Laay maa ngi lay woo ci làmb ji Aliou Sané Kambi euh, képp kuy leader politique dëkk si dëkk bi maa ngi lay woo xam ne lii. yëfu jam ñaajo la. yëfu jam ñaajo la. ngeen ñëw teg ci loxo. Mm-hmm. daan waa jël bu rek sama borom mbër yi may kontaagoo ndool ñu may mm-hmm. tiir. Mm-hmm. xam nga di jiital nuyoo bi mëma jum xam nga suñu grand. di ko teg ci loxoom mu jox ko ñëpp. di sant sama famille ma kenn. di sant suma soxna di sant samay goro di sant samay rak. di sant samay mag. ma kenn di leen ñaanal yàlla lépp bépp yéene bu am ci man. yàlla na ko suñu secondes. waaw waa leen wax xam nga xam nga mhm. moom mooy sama site. Mhm. parce que Leewtoo xam defal nañ ma loo xamante ne amul benn site internet bu ma ko defal. Mhm. ñoo nañ ma jël si ndogu. indil ma cadeau bu am maanaa. waaw di leen wax. yaay waaw fépp foo leen bëgg egg yàlla na ko suñu borom eggale. incha allah rabbi. Leewtoo ci kaw ci kanam. incha allah dama lay leer <laughs> bëreewu ma ak de damay xeex ak maa la mën maa la ëpp doole maa la gën a nekk xale sept fois. ah yaa ko gën a nekk xale ku la gis xam ni paa nga ngay laqatu naan ay gone nga yow. Eh, yow sa sikkim bii nga naan yaa ko gën a nekk xale. waaw baax na gis nga waa kay xam nga yooyu yëpp xam nga ci nax ko la rek incha allahu sa xal sikkim bi pour nax ko. xam nga euh, euh, préparation combat moo mel noonu. loolu mm-hmm. nangu wat sa bopp. Mm-hmm. mooy waaw nangoo wàññi dara ci sa ci sa bopp quoi ayca mi ngi noonu loolu moo nekkoon seen émission champion bi nga xamante ne bii mooy waree jam ñaajo di dem arène nationale mooy waree jam ñaajo di dem stade Iba Mar Diop mooy waree jam ñaajo di dem stade Demba Diop waaye mooy waree jam ñaajo di dem stade Léopold Sédar Senghor tey dab daan la jël si woon seen émission ndogu ak ñu ngi maa ngi jaajafal bu baax baax sama équipe bi ma àndal moom maa ne sama sama chauffeur bi gars yi nee nañ nga dugg ci làmb ji Bilal sama caméraman maa ngi lay bëggee Cheikh Ahmed Tidiane Kébé bëggee naa la ayca ayca waaw ayca waaw na gaaw ñoo fàtte Souleymane Dramé xam nga dafa nekk nit ku baax ci man di jàpp si tike mm. di ko woowaat bu baax. ay ñoom bay si bi. Mm. sama président fekk ngeen ko sànq ci kër ga. Mm. muy kan góon. Adam Mbaye laa mu jàngook sa lamb la. Tali Thiès. yaa ngi woote rek est-ce que li ngay woote nañ ñëw Adam Mbaye ku soxla billet mbay na ñi ngay woo ñëpp ku soxla billet <laughs> kaar yi ngeen soxla bu leen ñëw ci man dem leen si Adama Mbaye salaam. jaajëf dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen dogu ak beneen champion jaajëf.